Hasta asalaamaaleykum yéen a ngi si Guédiawaye Info donc dans l'émission émission xool artiste ak Mbaye Prézi aujourd'hui on est ici au niveau de Djibop pour waxtaan ak ñoom ci euh, festival bi ñu def 5e édition le festival Guédiawaye by rap DJ à Sarenzo léegi léegi yéen a ngi si Info xool artiste tey jii nii ñu ngi au Djibop avec euh, Paco donc Paco mu ñu nar a waxtaanee si Guédiawaye by rap festival bi nga xam ne c' est annuel ñu ngi si 5e édition bi 5e édition bi doon loo xam ne c' est vraiment spécial cette année-ci parce que nous ko dédié au feu Saranzo donc nous avons see waxtaane programme festival bi nan lay ak qui est chargé mooy directeur artistique du festival merci beaucoup merci beaucoup Guédiawaye Info donc je rappelle tout simplement que ni festival bi Guédiawaye Baye Rap ñu commencé décembre 2014 donc nous avons ko njëkkee def ñu centre on avait refusé du monde parce que ligne khalat à un certain niveau bousculade alors ci lañ gis la nécessité ñu génn ko ci biti bi ñu ko génnee ci biti année bi ci topp couplé woon ko ak li ñu daan wax la foire civico hip hop moo tax sax tey ba léegi ñenn ñi bu festival bi di ñëw dañ naan foire bi kañ la mais foire civico hip hop jeex na ñun ñu ngi ci euh, festival Guédiawaye en fait Baye ba Baye Rap loolu ci calendrier wu tam euh, suñu ay activité annuelle loolu ci la bokk mais ville bi pratiquement dañ koy xaar ak communauté hip hop bi donc chaque année ñi ngi koy def à partir du 22 jusqu'au première particularité de mon festival beaucoup c'est les fêtes qui se passent en période estivale festival mais ñun festival en période estivale mais hiver donc particularité festival c'est un festival hip-hop mais un festival hip-hop avec une connotation citoyenne ça veut dire que festival bi a de peinture mais leneen li muy àndal moom mooy fexe ba population yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les tenants et les aboutissants du hip hop ñoo xam ci sous région bi lañ nekk moo xam ci biir Sénégal lañ nekk particulièrement ci ci Dakar ñoom dañuy daje fii nii ci nga xamante ni mooy centre Guédiawaye hip hop. ak yeneen i barab yoo xamante ni dañ fa am ay activités yu ñu fa prévoir bu ko defee ñuy échanger autour de la culture hip hop ñuy échanger autour de la culture urbaine mais di échanger ci ay problématiques locales tels que éco-responsabilité, tels que voilà, insécurité, les phénomènes n'est-ce pas, de la migration, etc. Le lieu pour koy toog di c'est le lu bradage du littoral di ci échanger pour que nous ayons am ci ay solutions idoines. loolu nag moom mooy particularité bi nga festival Guédiawaye hip hop am Une bu particularité le moom que le festival bi rendre hommage l'instigateur de notre organisation en l'occurrence Sarenzo mural yi ngeen gis sama dit. nek fi won waye ci bi yeesal centre bi bo defee balayage di ko gis yi ni ngay gis ni ci prélude festival bi la bokkon donc def ay atelier yo xamanteni ni de fusion la ay graffeur yu fi dajé waye ñi nga xamni ñoko don lit ñom ñoo ñu RBS crew def ay mural ay portraits yo xamanteni ni day mandargal Sarenzo ci taxawayam bi nga xamanteni ni mom la amone ci géejawaay hip hop taxawayam bi nga bi amone ak ci engagement ci walu en fait environnement kooku moom mooy Malick Sarr décédé dans un accident de voiture le 5 février dernier mom lañuy sargal amna na yeneen film yo xamanteni ni defar nañ ko bi ci ñëk mom moy volontaire jusqu'à la mort tay yag nañ ko diffuser presque trois mois euh, Modou mam nga xamanteni mom moy réalisateur bi def nako Paris def nako Marseille voilà def nako fu bari ñun itam fi ci centre culturel yi def nañ ko pour rek perpétuer li nga xamanteni mom moy œuvre am waye benen film bi ñëw nak mom nak moy lépp ndax am loon ay témoignage boobu Saaren himself moom moo doon waxal boppam ndax ay archive lañ jël defaroon film bi waaye bii ñoon daf ci am ñun ñi nga xamante ni yàlla dogal na euh, buñ sañoon mu nekk si ñun ba léegi mais suñu borom moom moo dogal mu quitté ñu noonu ces derniers instants ñun la ko partagé donc li nga xamante ni marqué woon nañu ci wàllu engagement am li nga xamante ni ci wàllu liggéeyam ak moom vision am parce que Saaren vision la woon foo ko fekkaan da toogee ci biir centre bi day wax day expliquer nii nga ñëw ni sax di def ak moom émission bala nga dem dina am lu mu la conseillé am lu mu conseillé sa caméraman noonu la ko yàlla binde woon alors wax yooyu noonu am na ci loo xamante ni ñun moom lañ gënoon a jàpp waaye nit la koo xamante ne ni euh, ku reelu woon la donc anecdote yu baax ak ay vision am yoo xamante ni amoon na ko par rapport ak géejawaay par rapport ak insalubrité bi par rapport ak ndaw ñi nga xam ne dañuy taxawaal loolu yëpp mandargal nañ ko yi ci ben morceau la buñ ko sargalé tuddé ko jërëjëf saaren par nañ ko démb ci studio bi ak rapport yu bari fi ni ci ci biir ji hip hop ñu ci melni ay ñom almasi ñu melni ci ñom ay res de bes ñu ci melni ñom as the best, ñu ci melni ay paco pat ghetto ñu ci melni de nga mam ay lat ah, ay almasi ñun ñëpp ñu ngi ci bi donc defar sargal sargal ko ci pour que rek perpétuer œuvre am pas génération bi di ñëwaat saaren inspirer leen servir leen n'est-ce pas de modèle parce que rappeur lo won bo xamanteni mom limu daan wax daf ga daan daf ko daan traduire en acte concret bu ne fii war ñu fi tuur mbalit wala set dafa baax si si si askan du toog rek yam ci loolu waaye day wàccaat ak équipe bu volontaire veram bi nga xam ne moo ko initié woon te mu nekk un démembrement de Guédiawaye yi bopp ñu wàcc set setal te xaaru ci état xaaru ci leen loolu mu nekk ay ay ay actes yoo xamante ni c'est des actes citoyens yoo xamante ne ni ndaw ñi fépp fu ñu nekk war nañ koo mën a mën a roy da daan faral di wax ni booy taxawaalu ci arrêt ci yenn grand place yooyu loolu amul solo li am solo moom mooy ñu teel a jóg takk seen digg xam lan mooy jëmale seen gox kanam wala seen réew kanam ñu sëpp ci seen loxo yooyu bokk na si wax yoo xam ne Saareen da ko doon wax. yooyu nag dañoo bëgg nag tas ko ci àddina ba ñëpp xam ne mom à un certain niveau leader visionnaire rappeur engagé le woon te beaucoup ko xétu rappeur yooyu dafa espèce rare c'est des espèces en voie de disparition Lolo waral ñu bëgg perpétuer son œuvre ba ñin ñëpp xam ko pour revenir rek ci li nga événement festival bi ça se passe du 22 au 29 euh, décembre mais bu le 22 ba le 23 il pour a eu li nga xamante mom moko ay set setal la saxal garab la peinture la loolu mom moy mobilisation citoyenne dina am caravane de sensibilisation sur en fait la protection du bien commun li nga xamanteni ne ni moomeelu askan la naka lañ ko il sam yoy dinañ ci and ak mairie de la ville de Guédiawaye ci ceeg euh, prostay roller ak li gars yi Guédiawaye yi boobu yëpp sillonné quelque part ville bi sensibiliser dina am également ay saifa ci buntu djibi en permanence diggante bobu yépp nga xamanténi du 22 au au 29 mais également bu ñu ba le 24 ci la conférence de presse bi fini ci si centre Guédiawaye hip hop. donc nous ci invité journaliste journalistes, di avons ci invité yéen di ci invité voilà presse bi avons di ci communauté hip hop bi ak avons nga xam simple mélomane lañ loolu le 24 aji euh, hip hop yendu lañ leen di invité ñëw leen ñu célébrer hip hop donc euh, le 24. le 25 donc conférence dina fi am donc euh, yu am solo à partir de 16h ak ay projection de film waaye nak le 26 bu ñu nak ñi ngi dem fi ñu wax nak prison nak camp pénal fofu lañu def conférence bi demaat ci suñu mbokk détenu yi waxtaan ak ñoom dalal seen xel donc représenter leen jëlaat ñom li nga xamanteni mom moy mooy seen problématique ñu approprié wu ko waxaat tuuti ci droits humains et cetera mais dina am également un concert ak ay artistes yo xamanteni ni yu engagé leen té xam nañ ne lu ci ëpp la question euh, du milieu carcéral loolu daf leen di préoccuper ñoo ñi dinañ fa nek le 26 bi le 27 le 28 ba le 29 moy scène bu mag bi la grande scène bi am fini ci esplanade bi buntu way hip hop ak buntu stade Ndiarème bi fofu la scène bi di nekk logistique bi yépp donc nak daal di jàkkaarloog montagne marché Ndiarème bi comme on le ko chaque année. donc du 27 28 ba 29 à partir de 21h 22h on bi tak na lumière yi donc chaque jour dinañ am une vingtaine d' artistes communauté hip bi yëpp ñu ngi fi. Mhm. waaw on voit que ne cinquième édition bi grandement gars yi préparé nañ ko bu baax a baax dédié à Sarenzo donc ñëw nga si lan mooy importance bi ak euh, lu tax ñu dédié ko à Sarenzo en plus aussi ñëw nga aussi si programme bi mais li moo bëgg a xam mooy lan mooy objectif euh, bi nga xam ne yéen a ngi koy séntu si cinquième édition bi objectif ji boobu si cinquième édition bi quoi. waaw balaa may ñëw sax ci objectif bi dafa am loo xamante ni dama kaa fàtte sànq parce que ren dañoo am tam un partenaire de taille muy l' ambassade euh, de la Suisse. looloo waral xëy na sax graffiti bi yoon ñu ñu jëmmal ko ndax dañu am ay artistes graffeurs yoo xam ne dañuy jóge tam Suisse ku ci mel ni Anita ak yi ñoom Zurich la ñuy jóge donc dinañ nekk fi durant 23 ba ba ba 30 donc fii la ñu nekkandoo ak ñun bu ñu demee performance graphe bi war a am. sous forme d' ak yenen euh graffeur sénégalais yi am fële ci miiru prison liberté 6 bi ñom ñokoy koy donc euh, lolu lolu ben ki la ñu ko xéti en fait particularité la ndax daaw ñu travailler ak l'ambassade nest ce pas de la Suisse bu lolu weesoo amna sax suñu xarit yo xamanteni ni ñi ngi France donc ñew nañ pour festival il y en a d'autres qui sont du côté de Hong Kong waxon nañ ni ñom dinañ ñëw ñi ngi leen xaar ni ba donte ce n'est pas encore confirmé waaw en fait objectif yi moom mooy que ni rek

di ko jaarale itam nga maam si ay si ay conférence conférence c'est des conférences interactives nga xamantene ni nii euh, yi dañuy wax ba pare waye micro bi dina wër ci public bi am ay nit tas seeni ay xalaat yooyu yëpp ñu jël ko tënk ko ci ay kayit fas yéene koo doxewaat ngir suñu wàllu doxalin ci suñu communauté waaye di ko doxee itam dégg nga ngir suñu wàllu hip hop la ñu mënee taxawal suñu industrie musicale ak beat making ban apport la mun a am ci li nga xamante ni moom moo nekk en fait et cetera. yooyu yëpp dinañ ko waxtaan lan moo war a nekk taxawaayu rappeurs yi lan moo war a nekk seen leadership fan lañ ko war a orienté mais entrepreneuriat ban. ban place lay jël tam ci wàllu hip hop bi yooyu yëpp dinañ ko waxtaan ndax hip hop dafa dafa dafa yaatu Sénégal rap lañ gën a xam mais hip hop

commune ñu daal di koy jël surtout si seen communauté approprié ko di ko ci boole ci li nga xamante ni moom moo nekk seen seen seen approche. lool moom lañ leen di respecté lool ñi nga xamante ni dañuy jàppale ndaw ñi loolu moom moo tax ñu di leen euh, ñu di leen jàppale. ma di rappelé tamit que ni hip hop bi fi mu toll boo ko gisee ñu bëri dañuy wax ne dafa mel ni. produits yi génn nekkatul ay produits yoo xamante ni c'est des produits de qualité et cetera wala représentativité bi nga xamante ni moom la rappeur bi di war am amatul. real hip hop les américains ont l'habitude de dire que real hip hop empowers people and gives back to the community manam real hip hop moy hip hop bi nga xamanteni ne ni euh, day représenter euh basse classe bi ba pare. di tàggat seenum xel di delloo njukkal askan wi ñun ci loolee la ñu nekk ndax li ñuy def moom mooy entrepreneuriat social loolu ma bëgg hip hopeurs yi bàyyi ci xel xam ne ñoom li ñuy def théorie la discours la ci parole la mais balaa moo nice balaa ñu koy gën a jox cër moo ñu jëmal ko en acte concret kon let's celebrate hip hop ci kaw peace love unity and having fun one donc pourquoi, nous les remercier beaucoup. on remercie aussi de passage toute l'équipe de j ñu nous les remercions remercier bu baax Guédiawaye Info moo au euh, j pour waxtaan si préparation au Géjoy bayera festival 5e édition beaucoup qu'un tard. donc on vous donne rendez-vous ici le 22 ou le 29 au J-Bob Guédiawaye Bye, Prési peace